sama doom Bale Pereira di nuyu famille finance yëpp directeur des douanes mi ngi ci DOP DOP monsieur Mbaye ñoo ngi ziar ñëpp monsieur le ministre. monsieur le ministre vous êtes un homme bon monsieur le ministre je me rappelle une fois je vais prendre mes collègues en témoin avec l'échappée d'une vidéo donc vous expliquez les choses de de la finance da nga ko wër ko wër ni jindil leen ma vidéo bi indi leen ko. ñu indi ko cete à Saly nga éliminer vidéo bi xam nga loolu lan la woon pour nëbb say compétences pour être sous la tutelle de ton ministre que je me rappelle cette journée j'ai dit c'est un homme humble monsieur le ministre loolu mooy tekki loo doonul taalibeem doon doon sëriñam Ablaye Wali mu taxul la dendee kii bi ci jaxaaw monsieur le ministre ma gis ni ñu jaaxlee ba ñëw taxaw rek leeralal nga ñu ba suñu bopp yi léeg-léeg ma ni eh, kii Saliou est-ce que kii moom bëriwul wax rek wala lii dafa bëgg ñoo woon ni jàng na xam na numéro yi kii moom dafay wax rek de donc nit noonu lay def ñun ay mag neexuñoo jàngal ñun ay mag lañu ay mag boo leen di jàngal da ngay jël sa temps yépp di leen ko expliquer bañ comprendre ko ci loolu nga nekk monsieur le ministre vous donnez noonu bon monsieur le ministre les dépenses communes ma jàpp ni Sénégal wax nañ ko ba pare naa ko leeral man xalaatuma sama privilège waaye man damay bañ inégalité la voiture des députés pour man sama bataille la bul delloo benn xaalis bi comme li la Diallo wax xaalis bi dolli ko ci jëndal ñu ay oto wax ko président ne ko maam Diarra Fam ma ko wax maa ko wax oto yi droit la di nga fi gis député bu wàcc toog ci suuf di jaay mais di nga fi gis député bi wàcc di jël taxi. monsieur le ministre les Pikinois vous attendent sur tous les plaidoyers yu ñu tenir fii depuis le début ci manque d'infrastructure ci manque de tali ci manque de tout ce que tu veux nous sommes un département le vieux département. ce département-là qui a produit Pikine, qui a produit Kermassar, manque de tout parce que Guédiawaye l'a vidé de son tout. Donc, monsieur le ministre, nous vous invitons dans le département de Pikine, n'y allez pas. sant nañ leen yéen ñëpp gërëm nañ leen mboolem ministre bu fi jaar ba ci président bi on vous remercie.